Cheikh Ahmadou Bamba dénkoon na ko ay taalibeem te ndénkaane yooyu bu ko waxee mooy jullit yépp la ko dénk ndax moo wax ne kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida siwaahun intama ila jilaani aw intama li ahmada tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawabi moo wax ne wirdi yépp wirde woo ci jàpp danga nga am ngërëmal yàlla ndax sëriñ ba ko sos ku ragal yàlla la kon teewal sunu borom tabaaraka wa taala la kon la mu la sant boo ko defee danga nga gisanteeg ndiga ngërëmal yàlla ëllëg mu ne nag mu ngi cité ci sëriñ si ku mel ni Abdou Khadir yi ak ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sarif radiyallahu anhu nee na ñëw ñu ñëpp ak ñeneen ñu dul ñoom nee na kenn ku ci nekk la mu nekk dëgg la moo tax kon maanaa sëriñ si bu ñuy digle digle bi jullit yépp ñoo ko moom moo tax mu ne wasaytukum yaa man taxallaqu biya fi sirrin wa jahrin li wajhi rabbiya maa ngi leen di dénk yéen ñi aju ci man maa ngi leen di dénk yéen ñi aju ci man ci lu feeñ ak lu nëbbu waaye nag dénkaaniw lu leen ko ngir man maay Cheikh du Bamba waaye dama leen ko dénk ngir sama jëmmi borom moo tax ma dénk leen ko ndax looy def te yàlla taxul rek yàqu na àddina du yàgg àllaaxira waaye looy def yàlla tax rek loola am na njëriñ dana jëriñ àddina dana jëriñ àllaaxira moo tax mu ne an tatrukul muharrama wa kuriha na ngeen bàyyi lépp loo xam ne dafa xaram bu leen ko jege ab jullit warta jege loo xam ne yàlla da koo tere ab jullit dëgg-dëgg du tabe rek du mën sëgg siggi rek waaye dafay bàyyi lépp lu yàlla tere comme ni nga xamee ne ni la julli mel ci nit na salaata tanha anil faxsaai wal munkar day tere nit ki loo xam ne lu bon la ak lu ñaaw da ko koy tere moom jullit kon jullit lépp lu yàlla xaramal daf ko war a bàyyi moo tax mu ne maa leen koy dënk ak lépp lu ñu sib waaye nag maa leen koy dënk li wajhi rabbikum ngir seen jëmmi borom moo tax ma leen koy dénk dénku ma leen ko ngir man maay seen sëriñ waaye dama leen ko dénk ngir seen jëmmi borom wa kullu mustabiha ak lépp loo xam ne dafa lënt leeru leen bu leen ci dugg bari na tey ci àddina bi loo xam ne jaxasoo na dugg ci loo warta dugg moo ko waral ak wax loo xamul ak jëf loo xamul loolu moo ko waral waaye bu fekkoon ne ku nekk lu muy def da koo xam kon manaa jàmm rek mooy am waaye nit ñi mel nañ melukaan woo xam ne fu ñu far rek duufal ko rëyal ko ndax par gañ ca par moo tax dutuñ ci gis lu bon lu bax rek lañ ciy gis te lu bon kat amul place nek na ci ku bax nek na ci fu bon lu bon amul xet xet wu nek amna ku bon amna ku bax kon mbax yàlla moko yor te mokoy joxe te ku ko neex la koy jox liman shaa minkum an yastaqim wa yawma tasauna ila an yasa Allah rabb rabbul alamin kumu mu neex ci yéen ngeen jup way du neex kent te yàlla la neex yàlla mooy jubal yàlla mooy teg ci siraatul mustaqim yàlla mooy ki nga xam ne moo ñuy jox li ñu bëgg tey ak li ñu bëgg ëllëg yàlla rekk moo fi nekk koo mënta jàpp koo mën a jàpp itam yàlla la jàpp moo tax ëllëg yàlla mooy joxe aljana ci yërmandeem waaye maanaa aw xeet walla ab tarixa du joxe ajjana ajjana la koy joxe mooy sunu borom tabaaraka wa taala te mooy nga jaar ci ngërëmam dafa am ku ñëw ci sëriñ tubaa ne ko dama bëggoon ñett ba ñeent mu ne ko dama bëgg nga bàyyi ñett ba ñeent mu ne ko dama bëggoon gudd fan lool mu ne ko del dox ak bokk koy dokk kon da fi yàgg mu ne ko dama bëgg alal lool te ragal ak ñàkk mu ne ko nangu lool liggéey te bañ a yàq soo amul lu bëri kenn du lay kenn du la yërëm mu ne ko dama bëgg aljana lool mu ne ko li borom aljana yi santaane dee ko def kon da nga dem aljana mu ne ko dama ragal sawara lool mu ne ko li borom sawara yi tere na nga ko bàyyi loolu rek moo la ci mën a musal mu ne ko dama ragal dee mu ne ko ñoo ci bokk yem ku juddu da nga dee dee jarut ut gàllaaj jarut ut garab jarut takk téere jarut tangoo saafara ku juddu rek foo nga dee kon maak yow ñoo ci dégg nga moo tax mu ne man allima jamihan fal yu faarixa koo xam ne xam ne yii ma wax na tàqali ko moom bàyyi ko na bàyyi lépp loo xam ne yàlla da koo tere su bëggee ngërëmal yàlla na ko bàyyi bu dee taalibe taalibe Cheikh Ahmed Tidiane li yàlla santaane ca lay sax kooku mooy taalibe Cheikh Ahmed Tidiane li yàlla tere da koy bàyyi kooku mooy taalibe Cheikh Ahmed Tidiane moo tax taalibeem aljana rek lay dëkk waaw aljana rek lay dëkk waaye nag du taalibeem du ci aw yére du ci mbaxana du ci kaala taalibe bi jikko la jikko joo xam ne danga koy jëmoo waaye doo ko mbubboo ndax mbubbukat boo dee dañ koy summi waaye jëmm moom moom la ñu yóbbu bàmmel kon dangay ngay jëmmoo sa tarixa danga koy jëmmoo waaye doo ko mbubboo jëmoo ko nag mooy ngay def lu baax di wax lu baax di jë di di di yéene nit ñi lu baax kenn mënu laa tere am lu baax àddina kenn mënu laa tere am lu baax àllaaxira loolu mooy taalibi Cheikh Ahmed Tidiane mooy taalibi Cheikh Ahmadou Bamba waaye du maanaa sol mbaxana mu ñuul rek ak dàll bu gudd ak yére bu rëy di waaxu ci mbedd yi rek ñu naan ab murit nga fekk na déedéet du la murit murit ci xol la isil muridu laa du abada xayru rida rahmaanu aysul xasada murit mooy koo xam ne bu xayee ba jant bi so ngërëmal yàlla lay sàkku waaw bu jant bi soxee mu tëdd ci ngërëmal yàlla loolu mooy moom lay fanaanee bu yeewoo ca lay xayaat loolu mooy ab murit kon ab murit yombul du maanaa ab yére rek la noonu la tijaan mel itam ab tijaan itam yombul du naasiril xaq bil xaqi rek dégg nga ne wirde ko ca jàkk ja ak wéy ko ca jàkk ja génn doon ab tijaan te jabari jàmbur doo ko bàyyi doomi jàmbur doo ko bay alal jàmbur doo ko bay deru jàmbur doo ko bay kon su boobaa sa naasiril xaq bil xaq boobu jëriñul dara jëriñul dara ci kanam Cheikh Ahmed Tidiane waaw ndax maanaa jëfandikooloo ndigalam boo jëfandikoo ndigalam kon lépp lu yàllay tere danga koy bàyyi waaw comme lu Cheikh Ahmed Bamba wax néegi ne digal naa leen lu yàllay tere na ngeen ko bàyyi walaasimul waajiba wal man duuba na ngeen taqoog lépp loo xam ne dafa war wareef la wareef nag mooy loo xam ne dañ la koy teg te du ko te nga war koy def danga ko war a def te jullit wareefam mooy lu baax mooy wax lu baax mooy def lu baax mooy jëf lu baax mooy yéene nit ñi lu baax mooy di ñaan lu baax loolu mooy jullit wama ubbiha ak lépp loo xam ne yàlla daganal na ko ku mel noonu tax tawoo taxriba da danga làq jegeeg sun borom bu baax da nga jege yàlla bu baax wa laasimu taallama al ilma maha talasumi al amali fi ma suriya ngeen taqoog di jàng xam-xam te boole ko ak jëf jëf te jëfe itam loo xam ne charian la ndax jëf bëri na waaye am na jëf yoo xam ne wute naak charian kon jëf loo xam ne ni loo naak charian baax na bu baax a baax mel na ni suñu takk yi ci jàkk yi bu ñu takkee ba noppi séet bi nga xam ne moom lañu maye puudaram bi mu puudaru du yegg ci jëkkëram ndax nit ñi koy félicité yépp dañ koy fun te jabari jàmbur la waaye félicitation doy na rek waaye jël sa lex teg ko ci lexab jabari jàmbur naan ko félicitation sëy bi yàlla na yàlla def barke dégg naan daal yàlla defu ci dara loolu fekk na maanaat jubloo boo juboon doo ko def kon ku jub dangay xaar sa soxna te wacc soxnay jàmbur joxe loxo bi itam bari na lool ci góor ñi ak jigéen ñi te loolu sunu borom da koo tere donte da ngaa rus nit ki ba bu la joxee loxo nga dem bañ naa koo jox loxo ngir dama koo rus kon maanaam rusoon yàlla moo gënoon nga bañ koy jox loxo moo gënoon ngir nga rus yàlla mi la ko tere yàlla mi la ne bul jege kon laal ëpp na kon laal ëpp na kon maanaa xam naa ne waxtu wi dafa xaw a xat moo tax du ñu mën a guddal waxtaan wi ñoo ngi sant bu baax di ñaanal Thierno yàlla na ko fi yàlla yàggal bu baax a baax taalibe yi yàlla nañ dégg ndigalam te jëfandikoo ko ndax ñu dajeeg ngërëmal si Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.